amiin waw mais waaw bii lañ génnee bii nag bokk na ci cinq bonus track yi ñu maye. benn bi àdduna la tudd. Mm. ma ci woy àdduna parce que ñi ñi dañ daan faral di wax ni Sidi de ah day day woy morso jàmbur yi teg si richul mm. ma woo gaa yi ne la nag désormais da ngay bindal sa bopp damay bindal sama bopp waaw euh, du ma ne sax damay defal lépp sama bopp ndaxte nit mënul defal lépp boppam bu ko mënoon kon bu génne àdduna mooy yóbbu boppam ci armeel mm. ci boppam fa mm-hmm. nit mënul boppam dara mm-hmm. mais nag yenn saa nit bind texte bu bari texte yu bari ñëw jaay ma ko mm-hmm. am na benn morceau bu mooy joué naan mm-hmm. àdduna ni mii doxee nii bilaay walaay de neexuma jamono jël na yoon woo xam ni fami tere neexu ma mhm. bi ci njëkk mooy yàkkante der xeex ak xuloo bi ci réew mi yem na ma ñaata jigéen lañ fi yàq seen àdduna ci réseaux sociaux yi mama ak ñi caabi féete ginnaaw te kenn xamu ci li nga def addina doy waar di nga jàppale doomu aadama ba mu mënte dootuloo ko gis armeel yi fees na dellu lool ak ay bakkan yu ñu boom mhm. yërmande yooyu yëpp mi ngi ci mi ngi ci seede bi. Mhm. Ah, am na tamit beneen boo xam mi ngi tudd làccew ma beneen bi tudd sama jekk beneen bi tudd Serigne Babacar si bii ma woy ak Mame Baye Niass waaw mu nekk morceau boo xam mi ngi lëmbe àdduna. abaa xale yaa ngi koy feccee nu leen neex. fay ah, waaw bon man man daal li ma bëgg wax Sidi mii. Mhm. parce que man gis naa ko ca ca ba mu ñëw. Mhm. mais boobu maa ngi woon ci mbindum journal bi lu ma nettali. ba duma ma ko déglu mais tey déglu naa ko. kii doomi ñay la. mun naa juddoo ci ron lal waaye du fa màgg. dara du ko tey rëy te dinañ ko ñaanal lépp. bu mu des rëy. Mm. guddalub fan. amiin Diop guddalub fan. amiin Diop fan. amiin tubaarkalla amal loo foofu ci lion yi rek balaa ñu lay yeewi utal loo may lion yi. laa ilaaha illallaah. dëggal li Biram Njaayi xujatan. Ngone Njaayi xujatan. laa doomu yaay ñu ndaw ñi te ñu juuf ñu kaleen ah, équipe nationale bi yàlla may leen ndam ku ci mel ni Sadio Mané gone gi Krépin Diatta yàlla na leen yàlla may ndam ci barki ku tedd ki li may way mooy mm. ama li may way mooy bu leen waa Sénégal ñaanalee bu leen kilifa diine yi ñaanalee dinañ dem ndaxte nee nañu mbooloo du doole xoli booloo muy doole muy doole yal na leen yàlla may ndam ci barki hmm. fépp fàllu yàlla hmm. Hmm. ku ni Serigne Fallou Mbacké ci duniyaa gi dootu fi am te eh, dootul am ci duniyaa lii leer na yàlla yal leen yàlla may ndam ci barki Baay Laay borom yaram be yaram be Modou Abdallah naar ba coyof laay Baay oh. daane lee fii te way ci ku la xam xam la ak Serigne Saliou borom jàppandal borom ndokaan borom jurul borom jàppandal borom jurul borom jàppandal xabaan daaroog la gën daaray umul xuraan kookoy Seex Saliou yàllaaw déggal li da daan jékki-jékki di tuuri xewal ñu naan ko mbàkke lan moo tax ngay tuuri xewal mu ni mala yi ñuy te defuñu dara mooy aw ci sama yaram wi yaakaar si Cheikh Béthio fan la ñuy jëlati ku amit noonu yaay fan la ñuy jëlati ku amee noonu yërmande yaakaaru pako jóg seen caame waaw kooku mooy yaakaaru Sidi Diop yaakaaru Baara waawoy Xaadim Rasool ay Baay Ja rakki ma Mor Dia maam Cerno Birahim Ndaam ca Daaro nga yaakaar. kaay see taxaw taxaw taxaw dama mënut a jóg. tàggul ñi ngay tàggoo te jóg sedd na waay booy tàggoo nga tàggoo te jóg gaawal gaawal waay. léegi xam naa ñu ngi jooy. war fa kam. kon sedd na état ñu ngi jooy ba ma dem rek. sama papa Mara Dieng mu ngi toog di seetaan. te dafa bëgg Serigne Babacar Sy. ñoom kamu sekk dañu bëgg Serigne Babacar Sy Bakar rek dara man arano dimbali ma ci rek aram loo ku ma caam bu ku ma xaar yaa la woon sama baay ku ma sama foto ma wuyu la yaakaaru Matar Diouf yaakaaru sama yi ma moji baaba moji bu ngeen bone taama kooku alaaji Malick la ñu dégg naa ni faawaat wele muy dañoo dee ci ñeme waaye bu may woy Serigne Babacar Sy sama xel day dee ci Alassane ak Baye Gueye ak mooy yaa sukay na yaakaaru umu mami dundal waaw waaw yaakaaru iba sëya ngi noonu la yaakaaru gaynde waaloo ngi noonu sa yaay la yaakaaru ibrahima sëya ngi noonu ko ma joxaat nanu nanu nanu tàggu nag nanu tàggu nag nanu tàggu nag way ki nga xam ne nag mooy sangu sam gi nag Seydina Mohamed ka nga xam ne moo nekk ca Médine nag nu ñaan nag ca barke kooku nag borom bayre or nu ndam nu kooku noonu la Moustapha Mbaye daan way naan indi boobu yow mat borom li waawalan beese waawaay man ca gaaña buru madina aba tey ma nettali leet nu ci Seydina Muhammad am na bis bi di dox déggulu kay waaw ndeysaan li may woy pare nga eggale waaye sama xol bee ngi tooy Sidi pare nga am na benn bis bi di dox déggulu kay waaw yeneen waa ngay dox déggul koy waa ndeysaan yeneen wa wàññeeku ndeke boobu benn kewal moo ko doon waa ndeysaan yeneen ba wàññeeku ne kewal ga ana li taxoon nga di waa kewal gi ne Seydina Muhammad buuba doo déglu ma ma way Seydina Muhammad kéwal gi ne ay waa yow Seydina Muhammad man de dama génnoon di nampal sama njaboot benn rëbbkat jàpp ma yeew ma fii loola tax ma di la woo Abba Abba Abba Abba Abba Adja Fall mii baax na. kewal gi da doon dox ba mu yàgg déggul koy woo ku ma yàlla nga dajanteeg Seydina Muhammad. yeneen wi ñëw ne bëy bi lan moo taxoon nga di ma woo bëy bi ne ko man de dama génnoon di wut ma nampalee sama njaboot. benn rëbbkat jàpp ma yeew ma fii looloo tax ma seen la di la woo yonen wi ne ko est-ce que su ma la bàyyee mbaa di del si waat bëy bi ne ko booma ma bàyyee dinaa del si waat yonen bi yeewi bëy ba mu jël buum ba yeew ci tànkam bëy ba dem ci tund wa dem yu ko naan ko yaay yàgg nga fan nga ne woon c'est le prophète Seydina Muhammad ki ma garanti damay dem wuy jiwaat yeneen wa bëy ba ba mu namp leen njaboot gi dewaat fekk foofu yeneen wa toog yow fa tànkam Seydina Muhammad ni ko billaay bëy bi yow yaa gore ndaxte bulat ni xoon ma bàyyi la doo ñëwaat bëy bi ne ko yow Seydina Muhammad yaa ma gën gore ndaxte bu la neexoon ba nga ma bàyyee doo ma wóolu nag ne waa ji bi maa ko bawoon mu dem bu ñëwul woon loo namoon ci moom peeboo nga def ko ci man kéwal ga jaaxle naan béy bi lan nga mën a waxee kii nga xam ne nit la béy bi ne ko soo ma dégloo ma wax la kii ku mu ne ko kii mooy Seydina Muhammad kii mooy imaamul musallin kii mooy nabi kii mooy yaa rasulillahi yëgoon ni lépp luy mbaa ngay dox mbaa ngay mbaa ngay nooy mbaa ngay daw ci darajey waa ji lañ la bindee waa ji daal di daanug juk xool naa Muhammad ne ko jox naa la sama bopp fii ak fa ma jëm kooku mopp mooy Seydina Muhammad lu fi waay mën a am ci dunya ba di ko tiitaroo Seydina Muhammad a tax Youssou Ndour seede ma ma way yoneen way nga yoneen ànd ceeg Moussa Fambaay